La la! tabaaraka kilifa yi fi teew bokki taalibe yi bokki jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw sang bu tedd bi di sëy di saddaat di Cheikh Mouhamadou Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ba li mu yéenee liggéeyal way juróom mu baax wi ak maamam ji mu man ko te def ko te ñu nangol ko li Cheikh Mouhamadul Bachir bëgg ci moom yàlla na ko am li mu bëgg ci Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na ko am ci ndigalul sëriñ am di xadi faal mu baax mi di Cheikh Modou Moustapha liggéey bu màgg bu tedd bii mu ko jox muy daara jii di daara xam-xam ñu mën ko tudde ak université war cee sàkku xam-xam buy jariñe ci lislaam ñu dégg ni ko sanga bi baaxe sanga bu baax bi waxe Cheikh Mamadou Mountakha xam-xam yépp xam-xamu lislaam ci gën yar yépp it yarub lislaam ci gën barab bii nag ñu taxawal ko ngir di fi sàkk yooyu yaar xam-xamu diine lislaam ak yarub diine lislaam miir bii mu koy wodduloo mu war wodd barab bi ba barab bi wodd ci koddaay lu jekk lu rafet tey jii ku baax ki toog si Muudu Mustafaa Fall moom Sëriñ Asan Fall moom maam si Ibrahima Fall Babi Mouridina Fall yal na fi yàgg te ànd ak wér bi kilifa yi toogee Sëriñ Amdi Xadi bi mu ñëwee ànd nag ay rakkam Sëriñ Si Xadi Fall mu baax nii mi ngi nii toog Sëriñ Moussa Fall mi nii toog sëriñ Sidi Muxtaar Fall mi ngi nii toog sëriñ Abdou Aziz Fall mi ngi nii toog sëriñ Fallu Fallu sëriñ Aziz mi ngi toog ak ci rat ak mboolem ay doomam ak jëwriñu doomam yi nga xam ni ñoom dañoo ànd nag liggéey bi mu doon seen wëyjur di seen mag di seen sëriñ mu njabootu sëriñ Cheikhouna Fall maam Lampa nga nee toog njabootu sëriñ Abdou Ndogay Sering asal a ngi tok toog toogal fi magam sering Cheikh Fall euh, sëriñ Fallu Fall moom si am di yaasin mu ngi nii toog kon daal Mbàkke Kawsara ngi ak magi taalibe bi ak mboolem taalibe bi góor ak jigen ñoom tam ñu ngi lay ni li li ni mu ñore sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha muy mamam mu teg ko ci loxo sang bu tedd bii di Cheikh Mamadou Moustapha mu ñor ko alal day nuru boroom dongo yi ne nañu ni mu ñore sëriñ bee ñore ko Cheikh Mamadou Moustapha nit noonu la ñu ñore sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag mu Cheikh Abdou Latif moom la sëriñ bi yebal moom kat ab baay Fall moom ku ko xam xam na jël na dërëm ko jiital bokk gi mu bokk ak suñu Muntaxaa moo xam ci maam Mor Borom Saam la moo xam ci Cheikh Mamadou Bachir la sëriñ Cheikh Mbacke mu Abdou Latif jaay na bokk googee jënd ko ak taalibe ba ñëpp seere nañu ko te nag moom waa kër maam Cheikh Ibrahima Faam lu nu seere ci ak taalibe du neex a toxal te ñëpp dafa ñëpp seere nañu ak taalibe moom boo def sanget moom yow mooy li nga jënd daal moo kon Mbacke ñu ngi koy wax dalal jàmm moom mii de juróom bu baaxam moo wax ni ànd nag mu Moustapha Fall saamar Cheikh woo leen ñu toog mu ni Moustapha mu ni Fall mu ni Sërif mu ni Fall mu ni doom ngeen ci kër gi jarbaat ngeen ci kër gi waaye bu leen jàpp baay bu leen jàpp ndijaay jàpp leenu kër bi lu ngeen jënd ma jaay leen ko yow nag da ngaa jàpp sa diggante Cheikh Mouhamadou Mountakha jàppoo ndijaay jàppoo lenn rek li nga jàpp mooy diggante sang ak taalibeem rek kon sëñ sëñ Cheikh Mbacke mu Sëñ Abdou Latif Mbacke bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ Mouhamadou Moustapha ñu ngi nuyu ذهن ويكره الله ضمن يجلد مفازة كعبد في مصري يجلد وخمنا يجلد لسيد وسائل ذلك وأخذ في مصري Thank you. ñuy xamante ngeen jaxasoo boobu ngeen boole woon seen xol boobu ngeen boole woon seen lépp da bu sa tëye sëy bi boole waa leen liggéey bi muy boole sëy bi boole liggéey bi bëggee ko lool sant ko lool waaye ñu ne bu sa tëye la ñoom ñi ko ci gën a neex liggéey bi ñu ko sëy bi ginnaaw boobu am yéen ñuy àggale naa yi ñu ci fekk sa Serigne Mokhtar Serigne ba di xaritam ba di magam ja hmm. tàmbale woon ko Serigne bi am yéen ñu àggale liggéey yooyu waaye liggéeyu boppam bi bëgg a defal boppam hmm. bokkoo defal Serigne bi te bokkoo jiital ci ay liggéey muy jàngukaay Serigne Touba bii nga xam ne moo ngi tàmbale bi wax nañ ci lu bari xam jëm ci wàllu sëñ Mbacke Moussa hmm. سيد الله الحرم مباين رحمتي انت ما قمنا كل انتيات من جمعة واجب اليوم وكوا لهم سيد سألوا عما يبرد بالبوم ومتنت يوم الدم خير وغمه الدنيا سيد لي في البر وخمخم من نمر سيد نعم، تبادت الدنيا سيد لخمسين تبادت خمين الله الله خمين mën naa leeral adduna sëg te fu leeral di àgg rek ñu njëriñu Sëriñ Tuubaa la baax jàng xel boo xam xam ne ci génn moo xam xam-xam Sëriñ Tuubaa boobu dana day àgg waaye mu ne bi mu amee ci liggéey bi ñu defal Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee gis ne defar nga fi ab bâtiment daaw am na sa doom lool xool am sa gis lool moo tax mu bëggee ci ñu defar ab sàkket bi yi ko sëñ wala waaye ñu li ci gën a xaar dañ koy seetlu xolam de ñu def ko mu la sëñ Touba xam na ne gis nañ ko ci jiiróom mm. loolu ci dugg na loolu la ñu am nañ ko seetal sëriñ am taal yi ñu dégg ndax sëriñ am di moo jiitu ci daara ji bi ci jiitu loolu xam nañ loolu ci biir daaw ndax xam bi mu xam sa yéen bi xam nañ ci xam passeefam xam itteel kon sëriñ bi nee na sëriñ bi sëriñ bi dafa am ñu naan sëriñ am liggéey sëriñ Tuubaa bi yëpp sa def yàkkal ko loolu ba léegi ci jëndee ñu ak sa bokk yu baax yi li ngeen ko yéene nag ngeen mën a ko waaye ñu liggéey daara ji ñu ñëwoon ci sa bopp kon yéeg bi ñu xam ne ñu noonu bi ñu ñëwoon tam nga àggale ko sa bopp daal ko am dañ tàmbali yeneen di àgg yëpp di àgg dañ yàgg ànd liggéey sëriñ Tuubaa bi ak sëriñ Tuubaa ñu saa yi ñu def ci ay ndam yu kawe yoo xam ne lépp dañu koy teel rek maanaam ñu ngi liggéey ci sëriñ Tuubaa su ma kër saa yi ñu ngi sant mi ngi gërëm mi ngi sant ñu ko gépp xam ne loolu rek moom kàddu yi mu yónni noonu la ñoo xeelu ci diggante bi luñ ci dolli lan ci loolu dolli dañ koy suñu xol di ko ñaan suñu borom àggale ci barke sëñ Tuuba loolu mooy ngeen jàngi ko tëwér te àggale sàmm séngu yi ak naar yi luñ ko ñu ci tàmbali ak yi ñu tàmbali leneen dañ ko gën a ko seen borom bëgg sëriñ Cheikh Khady Fall nee na mi ngi nuyu bokk taalibe yi ci turu sëriñ bi mais daanaka li ma doon sëriñ Cheikh Mbacke mii wax na ko. waaye li mu li ma wér te wóor ma daal. waaye li ma wér te wóor ma daal. nanu ko ñaan ak wér. kattan ak tal ak fekke. lu mu ko liggéey loolu ne. ab xolam ëmb na lu ëpp li mu koy liggéeyloo la mu koy liggéeyloo kon nag ko ñaan rek nee na ñun bi itam nee na rafet na njort bu baax a baax ci sunu diggante ak sëriñ ndax du nu toqi du nu tàyyi bu baatam jógee rek nee dikk nañ sunu yéene ak suñu jëm ak suñu pos-pos. ak suñu pos-pos. kon loolu doy na si. nee noo ngi ñaan. nee ci kàttan moom mii toog. saa borom dooli nu kàttan. saa borom dooli nu kàttan. dooli ak wér. dooli ak jub. dooli ak jub. ba fu mu nu joxoon. bu jógee. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. taxaw nii ñëw leen dem leen ne baax bu duggee baax may ko may ko may duggee woon taxaw nii taxaw nii waaw da ngay bëgg waaw ñu la ci waaw ñu ngi wax bu dem bu dem bu dem bu dem de bu dem taxawal yow taxawal taxawal لا إله إلا الله man rahim barkeb Cheikh Serif Al Hassane Fall barkeb Sëñ Amdi Khady Fall bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki senegaal bokki àddina sépp seen mbokkum taalibe di seen taalibe ci ñi ci des mu taa sekk Baay Faal moo leen dellu di nuyu ci ndigu sëriñ bi ah di ngeen cérémonie alhamdulilah amin maanaam tegum xeer wi bi nga xamante ni moom la Cheikh sëriñ Cheikh Mbacke ci Abdou Latif Cheikh Mamadou Mountakha Seydi Sadat di sangu sang yi di Serigne Touba yebal ko mu ñëw tek xeer wu jekk wi ci miirub daara ji nga xam tane moy université Cheikh Al Khadim ci Cheikh Abdou mbacke soson ko fi yalla yalla yok ay ndimbalam ak mayam Cheikh Mamadou takka jox ci am di Khady ndigal ne ko nako yeesalal mir bi de ngeen kaddu ji Cheikh Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké tàbbal Serigne Amdi tam kaddu yimu jox serigne Cheikh khadi Fall mo and ak rakam kaddu ci tabal muy lepp deb talibé li di serigne Touba di Cheikh Fall naka jekki ni la démé légui nak ñoonu nak ba tek nañu xeer wi tambal nañu liggéey bi ñu présenté len nak ñi fi jotté tew ci lenn ci kilifa yi serigne maam Cheikh Fall mi taxaw mooy jëwriñu liggéey bi mo koy taxaw wa moy kenn ci jëwriñ yi koy taxaw serigne diab diop mi mooy entrepreneur bi di jëmm joo xam ne nag bi fi Serigne Assane Fall nekk ak léegi lépp lu ñu liggéey mu jëm ci wàllu ciment ci Serigne Assane ba ci suñu am di Fall sëñ Diab Diop liggéey tàmbalee ko ci bâtiment ba ci njaarim ba léegi man nag damaa màggat léegi waaye bi ñuy bi ñuy ànd may kii maa mooy liggéey man maay coffre man maay coffreur bi ba ci bâtiment ba ci njaarim ak yeneen yi si am di doon liggéey yëpp itam ba loolu jàllee itam Serigne Khalifa Fall mi nga xamante ni moo nekk moom lañ doon wane sànq ni ki mooy coordonnateur bi nga xam te ni lu ñuy financé ci liggéey bi ci loxoom la ko suñ am di faal. di teg bu dee bant muy jënd bu dee ciment mooy jënd bu dee fer mooy jënd bu dee suuf mooy jënd moom suñ xalifa faal suñ fallu faal lañ ko suñ fallu mbàkke nag la ko sëriñ Assane Fall tudde waaye doomu suñ am di xadee ñu naa ko suñ xalifa faal. sëriñ Alaaji Fallu Faal magam mi nga xamante ni mooy ki nga xamante ni lépp lu jëm ci bitim réew lu sëñ bi lijjantilu muy matériel bu jëm Kawsara ak lu mu doon sëñ Alaaji Fall moom itam moom sëñ Xalif Fall ñoo bokk wajuru góor gu jigéen waaye moom it sëñ Fallu Mbàkke la ko sëriñ Assane Fall tudde kon loolu doy na kóllëre ci seen diggante ak waa kër sëriñ Fallu kon sëñ sëñ Alaaji tam mu ci jitaay bi ak nag kon ni ñu ko waxee woon ci euh, cérémonie ba ñooñ ñooy sëñ Amdi Xalif Fall ak ay rakkam loola moom jàll na kon daal ñii ñooy liggéey bi ah, Serigne Diab Diop a ngi nii entrepreneur Serigne maam Cheikh Fall ngi kenn ci jëriñ yi sëriñ Khalifa Fall ngi le coordinateur bi yor mooy finance lépp ak sëriñ Alaaji Fallu Fall magam mi nga xamante ni lépp loo xam xamante ni moom la ñu jëlee bitim réew fu mu jóge ci loxoom lay jaar bu tegoo ci loxo si am di Fall mu teg ko ci loxo sëriñ Khalifa Fall mu mu def ko ci liggéey bi ñoo ñi ñoom ñoo jàppale sëriñ bi te te duñu yàq sëriñ bi dara lu ñu am dee ñu ko boole ci lu ñu leen jox ñu leen jox mu ko sëriñ bi jox ko sëriñ bi mu def ko ci liggéey sëriñ Tuubaa bi Cheikh Fall kon déglu jëwriñ kenn sëñ Mame Cheikh Fall sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi loolu te wér sëriñ Cheikh Jëmb yàgg fi loolu te wér sëñ Amdi Khady Fall mi ñuy liggéeyloo yàgg fi loolu te wér sëñ baa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp li may njëkk a tàmbalee leeral rek la ma waxoon ca keroog ca télé ba wax ji ñuy wax du wane du wane wu waaye yëgle la ak leeral sëñ bi day faral di wax naan bu ma dinaa liggéey ba liggéey bi àgg te kenn du ko gis ma jébbale ko waaye nag jamono moo toll ci jamono euh, jamono joo xam ne dañoo nekk jamonoy communication kon nag euh, wax li nga war a wax ngir keneen bañ la ko waxal wàññiwul dara fuloo ci foofu la ñuy waxe ñun nag dañuy bokk ci ñenn ci ndaw yi nga xam ne sëñ bi dañuy doxloo dañuy liggéeyloo ci liggéey bi waaye li ñu mën a wax daal mooy li sëñ bi bëgg ñu jottali ko li suñ bëgg daal ci liggéey bi bu ma noppee jàpp mi moom mooy chef maçon bi dana leeral yenn done techniques yi ak yenn aspect technique yi mu gën a leer ci ci nit ñi waaye li wér te wër daal mooy sëñ bi daal dañ koo liggéeyloo kon xelam dal na sant na sant na ndax ñun Baye Fall ni ma ko waxee woon lay dalal suñu xel mooy ñu liggéeyal Serigne Touba buñ ko liggéeyalul suñu xel du dal waaye buñ koy liggéeyal suñu xel day dal kon sëñ bi loolu mi ngi ciy sant bu baax sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu téwér di ci di ci sàkku ñaanu sëriñ Cheikh jëm mi nga xam ni moo moo fi Cheikh Ibra mu ñaanal ko ci liggéey bi ndax mu am ci lim bëgg sëriñ bi am ci lim bëgg li ci topp mooy sëriñ bi liggéey bi dafa nekk liggéeyu way way xarale doonul liggéeyu njëkk yi nga xam ne da ngay dem ci ab tool ñu lay liggéeyloo ngay bay wala ngay gas wala ngay bàcc wala ngay góob bokkul ak loolu liggéeyu waay xarala la kon nag sëñ bi dafa am ñu fi soxla gannaaw taalibe yi nga xam ne ni ñooy tibb suuf ak di roñ ak di yóbbu béton dafa soxla ay maçon soxla ay mouleur soxla ay menuisier soxla ay ferrailleur ak soxla bépp waay xarala boo xam ne sax sa sa liggéey dafa màcc jëm ci maçonnerie mi ngi la fi woo liggéey bi nag ab miir la buñ koy liggéeyloo mu nekk fii ci université sëñ euh, sëñ Abdou Lahad mun Muntaxa dafa wax ne day tàmbalee liggéeyam ci barabu xam-xam bi nga xam ne nii yéenay sëriñ bu mag bi la woon waaye doon sumb sëñ Abdou Lahad waaye dafa wax ne buy tàmbale liggéeyam fii ci barab bii dafa wax ne lim ci taamu mooy ku ci mel ne sëriñ Amdi Xadi jiitu ci balaa muy fi yebal yeneen ndaw yu fi war a liggéey ñun nag dañuy waddloo miir bi maanaam dañuy sàkketloo miir bi waaye nag sakket yag na am waye nak sakket bu méngoog jamono ji ñu nek mengo norme académie gu université yi nga xam ni ño am ci aduna te serigne Touba dama mësa dégg serigne bi wax ne ki gën dang koy defal li gën kon serigne bi lim bëgg moy li gën mu defal ko serigne Touba fi kon nak ñun ñëpp war nañu taxaw laxasaayuwaat jaajuwaat taxaw tem ndax liggéey bo xam buñ la né ñaata la ak fu mu toll da nga nan 2 km 200 lu mu néew néew xam naa ne ëpp na ko ndax ñi ko wëri waatoon wax nañ ne ëpp na deux kilomètres un deux kilomètres deux cent ñatt euh, ñaari kilomètre ak ñatt téeméeri mètre ñu wax ne noonu la toll bi ko njëkkee wër waaye ñi ko wëraat wax nañ ne ëpp na loolu ci sama wàllu sori ñii bu ñu waxee ba noppi amuma lu may wax man naa leen a won nag wax lu ngeen dégg soo gisee ñu dale fii léegi defe naa seen ngeen ni feer ya xubaag na raax bi bu ñu dóoree dañ na ci gàttal bu doon keneen manees na koo réparé joxe ko waaye sëñ Touba defe naa kenn du tolori oto di ko réparé di ko ko jox oto ba jëm ci moom ca gaz ca usine bi rek la war a jógee looloo waral coono miir bi dañu koo war a dindi defar ko ba mu nekkaat nuuf waaye mënoo réparé di jox borom Touba loolu rek moom moo ci soo ma ngaa continuer waaw waaw moo mooy li ma wax sànq rek sëriñ bi dafa waxoon ne dafa dañoo mos a nekk ci kër sëñ Touba gi mu fekk ñu ko daal di wax ne Euh, damaa bëgg ku génn ci jumaa ji mhm. xam ne borom jumaa ji moom moom kër gi ku génn ci kër gi xam ne borom kër gi moom moom jumaa ji mhm. ñu ne tekk ba caag mu daal ne ki gën bu lay liggéeyloo da nga koy defal li gën kon noonu la sëriñ Diab waxee mhm. jërëjëf sëriñ Diab Diop kon nag moom wax ji yàgg na li ñu koy tëjee rek muy delloo njukkal organe de presse yi nga xamante ni dañu fee daje maanaam yëgleel sëñ bi li mu bëgg a yëgleelu ndax sëñ bi siiwalul siiwal ak yëgle du benn ah, am po la ñu siiwal liggéey bi yàlla dañ ko yëgle léegi nag ah, télévision al mouridiya bu Hizbut Tarqiyyah sëriñ Atou Diagne def na ci jéego ba mat ndax bi ko Cheikh Mamadou Mountakha joxe liggéey bi man la woo nu dem studio nu def ci présentation yëgle yëgle bu njëkk ba gi nga mbooloo mi fa daje tey fa tabarakallaahu bi ñuy def tegum xeew itam mu yebalaat seen Mamadou Lamine Diouf ak caméraman bi mu àndal maanaam ñu ñëw maanaam taxawe lépp tayit suñ aatu dafa waxam ni keroog wax jox ko ndigal waa télévision bi ñun na ngeen ànd ak sëriñ am na kat di fàcc liggéey seen Mamadou boobee ba fu mu toll ngeen nga xam fu mu toll di ko jàlle loolu te it bu ci dërëm war te te dara waru ca loolu nañ ko na ko ñëpp xam kon sëñ Atou Diagne taxawaay bi mu taxaw ni day liggéey sëriñ Touba ngena ñu ma nag nun nun waa isbu tarxiya ñun Cheikh a Fall la ñuy roy doxinu Cheikh a Fall moom la ñuy roy lu ñu ci mën nit ko mën waaye moom la ñuy jéem kon lii feeñal na loolee kon wax naa ko sëñ bi sëñ baa ngi sant sëñ Atou di ko ñaanal ah, sëñ Muudu Mamoun sëñ sëñ Muudu Mamoun Ndaw sëñ Aliou Thioune yebal na ko fi ak télévision Lamp Fall gis nga keroog talaate maam si Ibrahima Fall sëñ maam si Ibrahima Fall mii dugg na ci studio bi moom tam nii waa Hizbut Tarqiyyah def ñoom tam ñu def ko ci télévision Lamp Fall bi bis bu ñëwee tam ah, sëñ Aliou Thioune yebal sëñ Muudu Mamoun Ndaw ak caméraman bi mu àndal ñoo taxawee liggéey bi ñoom it wa mu wane ni moom daal ni mu jëlee rajo ba tudde ko Mame Cheikh Ibrahima Fall télévision bi ñëw mu tudde ko Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu ne moom léppi organe de presse am léppi Mame Cheikh Ibrahima Fall rek la kon ñu ngi sant tey gërëm sëñ sëñ Bisiri ah, Bisiri ma fàttali Bisiri Bisiri TV Bisiri TV ñoom ñoom itam ñëw nañu fi maanaam ànd ak ah, kii délégation bu mag ak équipement bu mag moom itam nii Lamp Fall def maanaam almouride def ko def nu ko maanaam Cheikh Ibrahima Fall point com mu suñ fallu suñ fallu Fall Mbawar mu suñ Aliou Fall Mbawar mm-hmm. ñoom tam ñëw nañu mm-hmm. ak seen matériel mag ak seen présentation bu mat a mat a mat seen sum seen sum seen sum TV mu suñ Baara Seen moom itam ñëw nañ ci organe de presse yi mm-hmm. rajo Touba Fall bu suñ Cheikh Fall ndigal moom itam ñëw nañ dafa mel sax ñoom dañu ko jàllale woon direct dañ ko jàllale sànq bi ñuy def cérémonie bi kon ñu ngi sant Lamp Fall FM itam Lamp Fall FM doon na ko jàllale ndax bi muy bëgg jot dama woo sëñ euh, sëñ Ibrahima Guèye ah, ak sëñ sëñ Ali Badara Ndiim ñu daal di téléphoné fii ñu sëñ Mamour Ndaw nga fa yóbbu nañu fa télévision bi waaye na na rajo bi fa tabarakallaahu maanaam rajo bi nekk njaareem muy Moubarak al Moubarak FM ñoom itam ñoo nañu fi fa tabarakallaahu sëriñ bi maam sëñ maam Cheikh li nga wax léegi Fall muy dëgg ñun dañuy yëgle yëg leen nii dinaa ci leeral leen ndax lu jot day jot sëñ Amdi Kadi Faal moo ma ni Moustapha man ko Faal mu ma tëgg nii lu ko indi Kër Cheikh Faal laa ba bëgg a wax ma ni haa boobu la ko sëñ tere mu ngi tëgg nii ndigal lu ko mayoon ndigal xam nanu ko nanu bàyyi ba ndigal mayaat lu ko kon tëgg nii moom ndigal ko mayoon Kër Cheikh Ibra waaye bi sëñ Abdu Laat nekkee nag ndigal dana ko faa xañan mu ni ci jamonoy saa baay Moustapha lañu foor tabalay naar ñooñu suñu Moustapha Fall dañu cee bëgg a soññe soññe mooy yëgle booba média yi mooy tëgg am dënd mbaa tabalay naar mais ñun suñu Moustapha Fall ne loolu day jar laaj ci ndigal ku baax ki suñu Moustapha Fall jiitu ñu yor tabalay naar ji te ko ci kanamu saamam Cheikh Fall ne ko mu ne ko dongo yi dañ ko fee fooran bëgg ci yëgle saamam Cheikh Fall ne loolu kat kon day jar laaj ko ku baax ki ku baax si am di mii nii saa nañ ci fa jiitu sëñ mu taa fa te topp ci ñoo tabalee naar yi ñu jubba ci borom Tuuba Xaadimu Rasuul ci njaareem saa nañ ci ko dongo yee ko fi fooreen bëgg ci yëgle mu ne manees na ko ci manees na ko ci kon loolu ndigal la waaye bu ngeen ko ñuy tëgg ni u ko tëggee xul uwallaahu ahadun allahu samad lam yalit walam yolad walam yakul lahu kufuwan ahad kooku fuwul fëluwul mais bi ñu génn nag saanan si fan naa ah, di ngeen seen maam li mu waxa ñu ne waaw mu ne ba jafee ngeen tëgg ko jëf jël muy man amee la saalihan fali naf fii tëgg mooma nag ba mu jibee daaw ñu ko defee lenn lu dul lii booba moo doon rajo yi mooy télévision yi looloo ko taxan a jóg lu ci waaye boo ne lu lii nag liggéey liggéey siiwal liggéey sëñ bi doon ko taxan a jóg mu ngoog kon rek dana waaw li may tënk rek laay duggee ñu ciy li ci bokkul sëriñ bi dafa wax ne moom nit ñi xam nañ fuñ koy faj <coughs> ñi nga xam ne dara war na leen ci liggéey bi moom ñun ñi xam nañ fi ñu koy fekk ku ñëw fii ci ci liggéey bi ñu ngi fi teg te ñu war a jël lu mel noonu ñu ngi fi xam nañ leen nee na demlawul kenn fenn duggulawul kenn fenn te mi ngi soññu taalibe yi ci li nga xam ne nii moom lañ xame woon waa kër maam Cheikh Ibra muy yar ak teggin bu njëkk kilifa yi dañ daan dand ñu sant Mbàkke ngir bañ a jaxasoog ñoom waaye nag buñ la woowee ci seen biir ngir nga war a liggéey kon yow war ngaa indi sa melokaan yow Baye Fall sa melokaan mooy lan muy yar ak teggin sëñ bi daal nee na yar teggin mi ngi ciy soññe demlawul kenn fenn it dugalawul kenn fenn laajowul kenn fenn ci barab yi moom daal fi mu nekk ma nga fa ku dara war ma nga foofu ku ñëw fii ci liggéey bi am na ay ndaw yu mu fi teg kon nag loolu moo doon leeral bu mujj